سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وبلغ الرسالة ونصح الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني في الله نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal kenn ku nekk di leen mastawu coono ci bërëb yi leen jóge di leen ndokkeel itam ci lii ñu bokk te mooy jotaayu alquranul karim mu doon jotaay boo xam ni jotaay gënu ko ci jataay yi waaye fi ñu koy defee itam doon beneen jotaay boo xam ni bokk na jotaay yi gën a màgg jotaay yi alxuraan mooy téere yàlla bi gën ci téere yi ñu koy jàngal waaye juru fi jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na lum ñu ci waxoon waxoon na ni bu nit génnee àdduna jëfam yépp day dog ba mu des ñetti jëf xam-xam bu mu defar muy jëriñ ñu koy jëfandikoo ginnaawam walla alal ji mu jëloon def ko waqf billah te mooy waqf billah mooy sadaqa jaariya li nga jël def ko ci jumaay ji walla nga def ko ci teen bi walla nga def ko ci bërëb bërëb boo xam ne jullit yépp a ko bokk ñu siy jëriñu fii yéen ñu siy jëriñu yool ba di la fekk aw waladun saalihun yad'u lahu wala doom ju baax jooyar ci islam mu lay ñaanal loolu nag mooy jotaay bii tey njaboot ñoo dajee woo seeni mbokk ak seeni xarit ak seeni am gi jàmm ngir ñaanal seen waajur ñu koy ñaanal ci téere bi gën muy alquranul karim waxu yàlla mu doon téere bi nga xam ne boo ci tuddee benn xaraf ñu bindal la fukki yiw nga tudd ñaar ñu bindal la ñaar fukki yiw nga tudd ñetti xaraf ñu bindal la fanweeri yiw kon xoola tey biñ jàngee kaamil bi ay yooni yoon kon ñaata yiw ñoo fiy waaye loolu sax mooy ki nga xam ni dafay jàng te du xam li muy jàng lu mu tekk waaye kiy jàng te xam li muy jàng lu mu tekki bu ne alif 30 lañ koy bindal fanweeri yiw bu nee baa ñu bindal ko fanweeri yiw bu nee siin ñu bindal ko fanweeri yiw ki nga xam ne day jàng xam li alxuraan yi tekki noonu lañ koy fay waaye li ci am solo mooy gëm doomu aadama lépp lu mu am nga ma ko koy may lu mu ñàkk ñàkk gëm moo koy xaj gis nga gëm su ko nit ki defee day noppalu ci digganteem ak boroomam ndax lu mu def rek yàlla daf koy fulal jox ko ko waaye su nit ki gëmul nag day nekk ci fii bi nga xam ne ñoom dañuy jëf te ci ak du leen amal njëriñ jataay bi ñu toog tey di ñaanal ku fi génn di jàng téere bi yi am na koo xam ni gëm na ne jataay bi jataayu faw daal maanaam jataay bi du jataayu dara loolu la gëm waaye nag damay wax ni ñun yal nañu yàlla fayal mag ñi nga xam ne ñoo ñu def ay subiyanke sóobi ci yoon yi ndax bu fekkente ni nit ki gëm na dara ci ko def day am lu muy wone mag yi subiyanke yi damay wax ne mag mi fi mus a feeñ génération bi nga tombeeloon maanaam ña nga tollooloon jamono am na ci ay borom xam-xam yoo xam ne la nga doon woote dañ ko doon wécc waaye buñ ko toppee mag ñoo ñëpp kenn ku ci ne sa turan sax kenn ku ci ne fukk ñu la doon weddi kenn xamatu leen kon loolu beneen mbir la lu koy joxe mooy iman yal nañu yàlla defal iman suñu demee yàlla dootuñu sonn suñu gëmee yàlla dootuñu tiit ñu demee yàlla dootuñu ragal. waaye suñu gëmul yàlla ci coono lañuy ñuy dëkk ci tiitaange ci ragal ci wut luñ dul am dàq luñ dul jot ngëm nag muy imaan ñu bëri borom xam-xam yu bëri wax nañ ko waaye nga xam ne mooy seexana wa wasiyatina ila rabbina Cheikh Abdul Xaadir Jilaani ci tafsiram bi dafa séddale ngëm mu ni ngëm imaan ñeent ñeenti kurel bu ñëk bi moy imanul malaika ngëm gi nga xamni mom la malaika yi gëm ñom dañ ko gëm rek jeex na wañé wàññeeku dudul yok dañ ko kasté bi ci dess moy imanul andiya wal awliya gu yeen yi ak wali ñoy seen ngëm day yok rek waye du ko bi ci des mooy iman umuma naas ngëmu nit ñi nga xam ne dañoo mel ni man nga xam ne ay jurit lañu gëm nañ yàlla waaye dañuy jalgati ñooñ seen ngëm day yéeg ak waat buñ taxawee di jaamu yàlla seen ngëm di yokk bu ñuy mooy yàlla seen ngëm di wàññeeku bu ñuy jaamu seen ngëm di yokk ñuy mooy seen ngëm di wàññeeku bu ñu gënee jaamu seen ngëm yëpp man naa am nit ki toll ci martaba bi am fukk jaamu am ñaar fukk tooñ yàlla am fukk ak juróom jaamuwaat am fanweer tooñ yàlla am ñaar fukk ñooñu seen ngëm noonu lay def mooy ñetteelu catégorie bi bi des mooy ngëmu munaafiqiin yi imaanul munaafiqiin ñoom seen ngëm moom day wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba bés bu ñuy dee ñu wedd yàlla duñ gise dara loolu tax yàlla jox innal fi darki al asfali min annar ñoom ca ca ron lañ leen di suul seen seen moo gën a tar mbugalu yéefar yi sax kon nag ñun suñu yàlla mayee ñu doon ay jullit gëm alquran di ko jëfandikoo dañuy delluwaat sant yàlla yal nañu yàlla boole ñi nga xam ne suñ ngëm day yokku te du wàññeeku te yàlla mën na ko ndax li mu yor dafa bëri te day joxe lépp te nit ñi la koy jox te ñu koy ñaan lay jox kon ñaan nañ te yàlla ne ñaan leen ma may leen benn nit yàlla bu mag dañuy wax ne dafa ne moom su ñaanee yàlla ñaan gi nangu manam limi am ci contenté bu ñaané yalla te nangul ci lay ëpp contenté ñu ko lu tax mu ni parce que bamay ñaan yalla dama ko def ci ikhtiyar yi waye yalla lamu gant sama ñaan da ko def ni ikhtiyar yi manam limi ñaan yalla man di la bëgg di ko ñaan dama ko ñaan sama bëgg bëgg yalla bu ma bu ma ko maye sama bëgg bëgg rek la waaye bu ma ko xañee bëgg-bëggu yàlla la bëgg-bëggu yàlla nag moom ma gënal sama bëgg-bëgg moo tax fu gëm yàlla du gëm ne perte na benn yoon kon yal nañu yàlla defal gëm te gis nga nit ki su fekkente ni yaa ngi nekk ci àdduna di dund amoo dara lu li nga jaamoo yàlla sa borom kon soo gëmul perte nga soo gëmee nag donte benn bis nga fi dund am nga bénéfice damay wax ni nit ki benn bis bu mu dund suba ba ngoon bu tëddee war naa delloo xelam ne tey ji dafa war sant yàlla lu bëree bëri rawatina bu fekkee daf koo def ci ak jaamu yàlla bu ko defee ci ñaar yi maanaam jaamu lii li ñuy mu def safaan bu boobaay tamit war naa sant yàlla ndax lépp mënoon naa doon safaan benn nit yàlla dafay wax di ana talib yon talib yon dene ko ñun dal bus bu ne ñu ngi may yalla te yalla du ñu mbugal serigne bi ne ko da nga xamul luy mbugal su ne yalla mbugal la ya ko yegut mu ne amone ko xana xamone yalla bu la joxe alal sax mbugal la ci yow mu jox la alal nga am ay million te doo génne asaka du mbugal nga am ay million say dëkkandoo nekk ak yow di xiif ak mar ba leen ci jox mbugal la te jafe na nit ki am alal am xolu joxe mën nga xamoon ni bés boo xëyee bañ a jàng alxuraan bis boobu xamoon ni yàlla yu ci nekk ak ni mu toll nga xëy suba ba ci dara da jàngoo yaa ngi ci mbugal xamoon ni bis boo xëyee yor dara sa poos suba ba ngoon da sarxewoo yàlla mbugal na loolu maa leen buggal daal mooy mu lakk la wala mu rey la wala mu ne ko buggal yi dafa bëri xamal ni bis boo xëyee toog sa biir njaboot ba waxtu julli jot julli woo wala nga yeexe ko ngir sa bànneexu njaboot yàlla mbugal na la nga mën tudd yàlla subhaanahu wa taala mën a julli ci yonent bi bis boo xëyee suba ba ngoon defoo ko te am na ko koy bu boobaa ci mbugal yàlla yow yaa ni am li mu am du ko du ko am bala koo xam rek ñàkk gis nga boo xëyee ñaata yoon am droit wala ñaata yoon nga am doole tudd yàlla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ah waaye da ngay xëy suba ba ngoon doo jaar ci loolu ay gan tabarakallah li wax rek kon li am solo ci dundu doomu aadama ji mooy imaanam boo gëmee nag xéewal gi nga xam ne la la defal ci dafa bu ci li nga xam ne suufiyanke yu mag yi ñoo ko dundal ñoo ko indi fii moo tax ñu gëm ko ba di ko def man leen wax ne buñ ci naagu ndax niñ koy gëm gëm am na koo xam daa gëm ni dañuy fontu rek waaye nañ ko wóoram yàllaa ko nattoo loolu ndax ku gëmul ne kenn war na laa ñaanal di jàng téere yàlla bi kon da gëm ne ñaan amul ku gëmul ne ñaan amul weddi nga weddi nga alxuraan ndax yàllaa ni adooni astajib lakum ñaan leen moom may leen bu amul woon du ko santaane ñàkk ñaan kay mooy lu doy waar ñu ne yëg boo xam ne itamit juróomi jullit fuñ daje rek te gëm yàlla di jàng téere yàlla bi yàlla dina yebal ay malaayka moo tax rawaat nag mbooloo mi fi toll ak ñaata kaamil lañ fi jàng kon dafa mel nii bus bu nekk suñu amee jataay yu mel nii dañ ci war a góorgóorlu fàtte leen te suñu borom euh, dama doon di dalal bokk yi xaj na ñi war a waxtaan waxtaan yi ñu ngi fi ñu jox leen fa tabarakallahu déglu leen ñu mën a wax ak nit ñi delloo leen ci borom bi subhanahu jël leen ci suuf sax su suñoo génn ci borom bi léegi ñu ci yàlla mais dellu ci yàlla ñi génnoon a koy def ñu ci biir waaye dañ ciy gën a xuus kon yàlla ñu yàlla defal jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhanallah